xam nga formation bi ñuy def bi ñuy def bi ñuy def à l'ENA xam nga mhm. day durer deux ans xam nga doo jàll concours ENA rek nga dem nekk gouverneur wala sous-préfet mhm, mhm. gis deux ans boobu ngay def biir ENA concours magistrature auditeur de justice yi deux ans boobu ñuy def centre de formation judiciaire greffier yi deux ans yoonoon ñuy def mooy équivalent ki génn université pour beneen métier mu war a dem defi stage ci benn entreprise stage kese mooy permettre mise en adéquation mais du université moo lay jàngal yow li dem yóbbu ci sa bërëbu liggéeyukaay pour en revenir à entrepre à entrepreneuriat bi nga doon wax léegi nii c'est une mooy li wax c'est une solution. Mhm. mais ce n'est pas la solution. c'est une solution parmi tant d'autres. parmi tant d'autres mhm. léegi nag pour que mu nekk solution bu viable il faut que l'environnement soit propice. parce que bu ay jeunes jeunes sénégale bu gisee wari wari ak jooni jooni fu mu mujjee. il faut mu am lu ko dope pour que moom mu sañ a lancer wu et surtout que les financements que l'État octroie suñu su su fekkee ce pas insuffisant c'est le suivi ki fait défaut wala ñu jox ko koo xamante ne à la base il n'est pas entrepreneur xam nga entrepreneur mooy kan entrepreneur mooy ki jël xaalisam mu def ko ci business mu échoué mu amaat fitu ñëwaat mais am na koo xamante ne boo ko joxee du ko ci sax def. bu mhm. muy xol dina échoué wala du échoué. Mhm. pour pour pour pour mu xool leneen donc vice bi am ci côté entrepreneuriat loolu am na ci nan na ñuy cibler les bénéficiaires pour que mhm. état bi bañ a nekk di jeter son argent par la fenêtre. mais par rapport ak fonction publique pourquoi on insiste là-dessus. xam na ñun suñu problème euh, problème insertion diplômé yi. dafa am dafa am lu ko gën a exacerbé mooy ñun on est dans un pays où la euh, où on a de la loi. li nga doon wax léegi nii. association euh, mooy léegi par rapport au diplômé mooy li nga doon wax léegi par rapport au diplômé par et et l'insertion à la fonction publique. te du fonction publique kese ba ci entreprise privée yi. Mm-hmm. combien de personnes ont été abusivement licenciées inspection travail am na fi euh, lépp am na fi tribunal du travail am na fi et pourtant mujjul fen Mm-hmm. pourtant donc sa te te lu mujj fenn. Ah, non justement moo tax ma ne la euh, dafa am ñaari échelle mm-hmm. création d'emploi lenn la. protection des emplois déjà créés tamit leneen la te loolu peut-être du ci dal suñu xel instant bi mooy démb ou bërki démb on a eu l'information que le ministre du travail a a a obligé une mm. entreprise privée finie pour ne pas a citer ouais. à régulariser plus d'une cinquantaine de d'employés yu fa doon liggéey donc ce qu'on attend de l'État aussi c'est ça mu taxaw taxawaayu taxaw taxawaayu surveiller pour xool yan structure ak yan kuréel ñoom ñooy respecter les législations en vigueur euh, contrat de prestation nga signé nit ki nga respecté ko mhm. contrat de de stage la dafa am nombre de renouvellement yu la loi limité léegi bu bu ñu mënee am bu ñu waree am code du travail am mhm. inspection du travail am administration du travail ba pare on a on fait rien de ce que tous ces textes là donc mooy créer le euh, le le, euh, le désordre qu'on vit là alors man fu ma lay relancer c'est par rapport ak